nuyu nañ leen bu baax jaajafal leen ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bii di net bi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doo rek kat bi nga xamante ne journaliste bi di Madiambal Diagne daal dina koy annoncé rek ñeel libération Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye niki tey ci àllarba ji yemoo fukki fan ak ñett ci weeru mars ci atum 2024 bi lee daal di xamle kii di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye dinañu génn ndungu siin gi nga xamante ne rek fa la ñu nekk mbir mu nu mel nag ma ngi ko daal di xamle ci page Twitter mu daal di cay yokk nak ne le président de la République Macky Sall bi nga xamante ne rek moom la daal di voté la woon foofu ci assemblée nationale ñu di peeko loi amnistie yi mbir mu nu mel nag moom moo tax rek moom nag daal dinay fësal na nag kii di ausman Sonko ak Bassirou jamay Faye nag dinañu nooyi daal eeru liberté nit tey ci àllarba ji yemoo fukki fan ak ñett ci weeru mars ci atum 2024 bi ton wala film judiciaire bi nga xamante ne rek doxoon na ci diggante opposant bi di Ousmane Sonko ma nekk ci prison ba état bu Sénégal daal dinay jeex ndax état ci jëmi boppam rek nit démb ci talaata ji dafa daal di renoncer maanaam teggi lépp loo xamante ne rek tuuma la ak li nga xamante ne rek moom la dal di bañoon muy décision bi nga xamante ne rek moom le président bu tribunal instance or classe bu ndakaaru sàkko woon ngir ñu dellowaat maire bu Ziguinchor lépp loo xamante ne rek àq la ak yelleefam ba noppi rek dugal ko ci liste électorale yi lée mu mel ni rek ci ab note boo xamante ne rek daal di koy adressé lii di président bu chambre administratif bu cour suprême agent judiciaire de l'état bi di wóo ci turu Yera Moussa Diallo daal dinay xam ne que ne nag état ci jëmmi boppam rek daal nay ragg seen der ba mu set wecc maanaam daal lépp loo xamante ne rek bañoon na ko daal na koy nanguwaay waaye nag fexe rek ba setal lu wecc deru kii di Ousmane euh, Sonko jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàtte abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen i info